toog bu ñu waxee ñu ne la ah def nañu ni bu ñu demee hôpital foofu lañ leen di njëkk a négliger seetaan leen ndax bu ñu demee hôpital am na noo xamante ne suñu leen ko teeloon a jël bu doon doomu borom alal lañ wala doomu borom xaalis lañ kon heure bi lii romb nañ ko bu yàgg kon doo dégg sax ñu lay naan dañ lay naan la dindi nañu bal bi mais tey ñu dem ba nga xamante ne dee na boo demee ñu naan la dañ leen a tere manifester dañ leen a tere nanga ma nanga te yow xamoo kooku lan ban kii la am foofu ba ñëw ba loolu fekk ko fa mais da ngeen dañuy maanaam nit ki niñ lay négliger ba nga dee ñu soog na commencé ne la sama kii bi nga fi indi woon mujjee naa de yéen ñii dafa ñaaw dafa metti bu fu dëgg yam metti na torop torop torop metti na naqar la ñu nekkee ñun ñëpp su ngeen gisee fii nag ay nit ñii nekk fii ñii nekk fii maanaam ngeen fekk fi booy yi kese ngeen fekk fi xale yi du dara dafa tombeek xale yi li tax ñu di leen fi fekk moom dëkk fi Touba la dëkk dafay ñëw di daan si doole di liggéey amul benn boo xamante ne da ko fay ñëw di def si daan si doole bi nga xamante ne day daan doole di liggéey ngeen ñëw di fekk xale yi ñenn ñaa nga hôpital ñenn ñaa nga fii te ñi nga xamante ne ñoo nekk hôpital ñi nga xamante ne ñoo nekk hôpital ñoom tamit ñu bari lañu ñoo toog fii mënuñoo def dara ñun ñu toog fii sax suñu xel dafa dalu ñun suñu sañoon ñun ñëpp tamit dañuy dem fekkee ji loolu mais tey moom mi nga xamante ne Touba tamit am na ay mbokkam ñëpp ñu nga Touba ndax Touba la jóge ñëw fi jàng fi alxuraan ba pare nekk ndongo daara ba pare continuer waat nekkaat ci métier di continuer doxal liggéeyam fu màggal jotee mu àndandoog ñi mu nekkandool fii ñëpp àndandoog ñoom dem fu géyee lépp lu xew Touba tabaski bu jotee lépp ñu àndandoo dem moom magam maam daam ñu nekk xale yoo xamante ne ne macha allah rawatina tamit du Gueye maam daam tamit nag ñu ngi métti lu trop li nga xamante ne ne da koo dal lii nga xamante ne ne mu nekk rakkam nekk xaritam ñu koy massaw bu baax a baax dëgg la ñun ñëpp la metti mais rawatina moom mi nga xamante ne moom la dendal lii ku ne méttiwul ku ne rek wana ku naan waroo woon a dem ak nangam dafa fekk ne ne maanaam da nga xamul tolluwaay bi te nit ki mën na dem di liggéey ji bakkanam des fa nit ki mën nga jóg dem di defi ji dara te fekk na ne yow jógoo pour loolu da ngaa jógoon tey ji tey pour dem ñaata nit ñu rey leen fi ñaata bakkan ñu des fi ah li mais lii bakkañ ñun fan lañ jëm bakkañ bakkañ dafa metti dëgg yàlla bi rek moo ñu jàpp ne wax ma wax ne merci. grand mën waaw bon man maa ngi tudd Samba Camara euh, Mour Gueye nag man mooma doon ànd guddeeg bëccëg su waa ngoon gis nga kër gi ngeen ñu fekk tey duñ fi jug tëdd moo ñu fiy jële ñun ñëpp ñun ñu ngi fi fekk ñëpp tëdd moo ñu fiy jële bu ñu xëyee balaa kenn di liggéey fii la ñuy jaar regroupé wu fi soog a dem xëy bu ñu wàccee tamit la même chose fii la ñuy def fii kër gi ay trois heures une heure deux heures lañ fiy génn di matin ku ne dem tëddi. kañ nga ko gëj a gis. Modou Gueye démb ñoo ne démb biñ julee ajuma trois heures lañ gëj a gisante ñoo yendu tout la journée ana kaas bi kaas bii nii moom moo ci ndekkee démb gis nga raxas sax defaguñ ko ko moom moo ndekkee si kaas bi teg ko gis nga fii ngeen ko fekk teg ko fi ay trois heures mu sangu simi ay yërëm yëre yaa ngi ci biir dem jël si jaada bi dem julli ji bi mu demee julli ji ba ñëw si la porté saagam parce que moom euh, day jaay moom bi mu nekkee lu ndaw deux 2002 lañ jóge Touba moom ak magam ñëw fii di jàng daara fii ci ginnaaw raay daara Baye Dam mais après biñu demee ba daara bi daara mi ngi existé ba tey mais ñoom biñu demee ba wàccee wàcce waat dañoo jël seen initiative bu bopp mook magam di liggéey waa demuñu ñaan kenn demuñu saraxu kenn ñoom dañoo dem pour liggéey dañoo jël seen alal investir imagine toi centre commercial nekk si centre commercial nu mettee ñoom ñu fexe ba jël fa seen place ubbi seen boutique bopp ci centre commercial fa jël xaalis bi ñu am yëpp financé ko di fa liggéey di fa jaay di jaayal seen bopp lu ñu am yoral seen bopp kenn xamulu leen ñu jëlal seen bopp néeg fii si ginnaaw raay parce que ñoom seen famille papaam dafa gaañu yaayam dafa gaañ ñoom nekkuñoo kenn seen benn mag mi ngi extérieur fàllu nekku fi moom mi ngi extérieur ñoom ñaar kese fi nekk maam daam amul nuñ ko yëgeewu lu dul metti wallahi azim da ngeen fekk sax ni ñi calmé wu mais ce matin fii dafa fees dell ce matin fii dafa fees dell ñun musoo jooy dëj wala lenn nekkandoo mu tàggalo mi ngi dem liggéey deful dara fii nii koñ bi fii nii boo fi duggoon di laajte ñun ñooy seul groupe boo xam ni plus de vingt personnes ànd amul ku ci tux amul ku ciy naan ñëpp amul kuy tux amul kuy tooloo bi fi am doon benn bi rawatina Modou Gueye nekk suñu nit nekk benn marchand ambulant bo xam ne gëm boppam doon ubbi place alors mu yor ay affaire am di jaay ñu tiré ko si léegi après dee na nii day niil quoi ñu dem hôpital au lieu que sax avant dara ñu jël ko mais li njëkk a def hôpital mooy laajte mag bi ñu récupérer ay quarantaine récupérer ay affaire am pour encaalan bu at dara amee ñu mun ko laaj xaalis et alors c'est pas normal li am importance dëgg mooy bu ñu àndee malade ak bépp urgent bu mu munti ne da ko war a jël dèjà nga dugal ko ba pare nga xool ci lan la nekk ba pare après nga soog xool leneen li stop mais imagine toi nit ñëw magam bi mu bokkal ndey ak baay même bu munul dugg gis ko na ko teg benn coin boo xam ne bu ngeen soxlaa dara di ngeen ko laaj mais demal wax ko fale fële ñu ko dara après na ko mun nga ñibbi kenn xamul ban heure la dee on sait jamais guddi gi la fa jóge fajar gi la fa dellu ñu ne ko dee na ban heure la dee xamuñu est-ce que est-ce que biñ ko andee foofu laal nañ ko xamuñu. kon daal naqar ngeen yeewaale ko wallahi azim koñ bi ginnaaw raay bi bu ngeen génnoon fii di bu ngeen génnoon fii nit ñi koj leen nit ñi koj leen di wax bu ngeen génnoon si koñ bi koñ bi fii sàng ba tey ñi ñëw ndax jot ngeen ci koor gi ndax nit ñi maire ak paa yi kenn dugg fi ndax jot ngeen si koor gi fu ngeen si toll sàng ba tey appel yi ñu nekk fee tamit amul ñooy seen xel sax mënul dal ñun rawatina ñun ñu nekk fii parce que chaque instant ñu woo leen ndax instant bi jot ngeen si depuis lors ñi ngi woo am na kayit am na kayit nangam lu ñuy autopsie autopsie mooy ki ñu fekk néega mu dee lu ko rey wala nit lek leen dee wala mu naan leen dee kooku dinañ autopsie lu ko rey mais koo xam ni bal lañ ko dóor mu dee xam nañ ni bal moo ko rey kon nañ xam ni lii bal la dèjà ñu defar suñu kor jox ñu ko après ñu jébal ko quoi Touba instant bi boo ko jotul mënatoo ko yóbbu parce que guddi na il fait nuit mënoo fee jóge ba dem Touba léegi après ñun cause bi Macky Sall la wala cause bi ñan la boo waxee ñu ne la jeunesse bi ñooy manifesté wu tey yi boo demoon sur le terrain nga laaj jeunesse kenn ku ci nekk ak lim lay wax am na koo xam ni day manifesté wu pour injustice bi am ci réew mi am na koo xam day manifesté wu pour li nga xam ni moom la ñuy def Sonko am na koo xam day manifesté wu pour intérêt personnel am am na koo xam day manifesté wu pour réew mi nu mu méttee kon ñoom ñëpp képp ku ci manifester li ngay manifester sa avenir la yow sa avenir u pap sa avenir yaay ak say avenir u rakk yow parce que yow da xeex pour yow injustice bu am ci réew mi pour réew mi mun a baax ñun xeexuñu pour réew mi bonde dañuy xeex pour réew mi baax te démb yéen xam ngeen ban ban lu ñu woote ñu ne ñu pacifique la ñu wax pacifique ça veut dire mooy dañuy dem ñu wax lu ñu metti après ñu ñibbi mais mënuñoo ñëw nit ñi def pacifique moo war jaar yi nga ni doo fi jaar ngeen baare foofu jeunes yi ne noonu jaar ngeen njëkk a ga imagine toi ngeen njëkk a gazé ay lacrymogène bu xeex amee dañuy foog ne jeunes yi ngeen gazé ay lacrymogène gazé leen booy bu ñu riposé ngeen ne ñooy manifester te ñu ne pacifique yéen seen moroom journaliste lañ jàpp di ko dóor ngeen gis ko di ko dóor di ko tulli handicapé ah? koo xam ni mënul dox amul cër ñu jàpp ko di def di n'importe quoi yoo xam ne instant bi léegi kii dee na ñàkk na léegi fu muy fu man Mame Mbaye laa tudd waaw vraiment moom bi ma yëgee ni Modou Gueye na métti mhm. na ma trop waaw parce que bu dul dara bu dul dara sama frère la mhm. comme grand inci waxee léegi gis bi bu dara lenn rek la xam ni que mun naa ko bi mooy que tey jii kii sama grand la booy ay xale lañ comme ñun ay jeunes mais boo ñu fekkee fi ñu toog ni doo xàmmee fi kii moo fi grand wala ki moo fi mag ñu ñëpp dañoo booloo doon benn waxtaan kenn ku ne bu xëy heure jotee ñu liggéey Modou Gueye man leen laa xamee marchand ambulant la liggéey laa xamee liggéey wàcc instant bi nii day xool période comme tey jii Sénégal coupe du monde bi coupe d'Afrique am na nga xam ni xale yi soxla nañ ay ay mayo ay yu demee noonu yooyu lay jënd di ko jaayaat kon kooku yaakaar naa ne buy def loolu kon bëggal na boppam dara en plus beneen bis tam si gën a tuuse li ma gën a tuuse mooy que li nga xamante ne amul nday amul baay amul kenn ku ko mën a taxaw fii jamono jii nii instant bi ku benn magam boobu noonu mu dese ak ñun ñi nga xamante ne ñu la fi am man loolu moom si gën a tuuse merci soxna merci beaucoup. yéen non incha allah incha Dakar yaa Dakar Feeling Dakar nos plateforme del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu